كتبت وكل فاء نفسا فوسركا وقبل سالبي نسيب دون كتبت وكل فاء wa barakaatu di nuyu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ginnaaw ba ñu yàlla julli si nante bi ñu sant suñu ñaari waajur tey ñaanal réew mi jàmm kilifa diine yeeg a def lu tey ñu ngi fii maxwa suñ ne jannatu maxwa pencum sëñ Béthio bi suñ ne jannatul maxwa fenn fi nga xam ne fi la sëñ Béthio daan defee cantam di def defee màggalam tey nag ñu toog ak kenn si njabootam gi muy soxna Aïcha Mama Kane ñu ngi koy siyaare suñu yaay booy boobu tey ñuy bàyyi nuyoog téléspectateur 7TV yi ñu. waaw maa ngi leen di ziar di waa 7TV waa di bég lool ci lii ngeen ñëw di am ñun waxtaan ci sëriñ bi ak ci màggal gi di leen ziar bu baax. jërëjëf sang bi di ñaanal yow nga yàgg fi lool te ànd ak wér waaye cun dañ lay laaj benn question rek wala ba ñaar ndax xam nañ ne yaa ngi si yoon te dëkk bi xam na lool euh, première question bi ñu lay laaj sa digganteek sëriñ bi euh, nan ngeen daan waajee màggal gi. waaw. waaw tout d'abord maa ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant sëriñ Saliou Mbacké di sant nag sëriñ Béthio mi nga xam ne tey jii moom jëmam bi rek lañuy dund fi mu nekk nii màggal gi ñëw sëriñ Béthio ak yàgg ndax man de def naa ak moom ñeent fukki at waaye dafa mus a fonk màggal gi mm-hmm. bu màggal ñëwee lekkatul naanatul màggal gi rek mooy li nga xam ne mooy yitteem ñu daan ko def dañ ko tàmbalee woon ba mu egsi fi mu egsi nii waaw moom moom daal dafa dafa fonk màggal gi te loolu daal maanaam def na ko ak cant euh, di liggéey di ci liggéeyal Serigne Saliou Mbacké ak Serigne Touba muy Serigne Saliou Mbacké waaw te saa su ne muy bernde li nga xam ne moom la sëriñ bi wax maanaam bernde rendi te amoo ci xaj ak seen ku ñëw bokk na ku ñëw rek bokk na ci bernde yi di bëggal ñëpp ci loolu la mu sa nekk bi mu fi làqoo ak léegi itam ci loolu lañ nekk di bernde li ñu mën di rendi di di bég day bégle waaw muy nit koo xam ne ni mu meloon ci màggal gi ñëpp xam nañ ko ni mu fonke woon màggal gi ñëpp xam nañ ko ndax da daan wax naan sëriñ bi de ndigalam ci ñun mooy na ngeen fonk màggal gi na ngeen bëgg na ngeen dundee xasaayit yi teg ci gàmmu gi mm-hmm. waaw loolu la ko sëriñ bi digaloon te li ko sëriñ bi digaloon ba mu fiy jóge mu ngi ci mhm. waaw boole waale ci nag cant 17 avril bi nga xam ne mooy suñu cosaan mhm. mais bi mu fi jógee aussi ñun ñu ngi jéem a perpétuer loolu di te man di leer na ma ne ci li mu nekk wax rek lañ nekk ba tey mhm. di ko sant bu baax a baax man de damay sant rek parce que man moo ma dugal ci yoonu murit waaw ma am ak moom lu mat vingt quarante waaye générosité am mbaaxu sëriñ Béthio bëggam sëriñ Touba mi sëriñ Saliou man wax dëgg yàlla gisuma ko fenn wax dëgg yàlla nit ku baax la ku bëgg njaboot ku bëgg mbokk taalibe yi ku bëgg jullit yépp te moom de wéetal nañu mhm. moom dafa ñoo wéetal ñépp a koy wax mhm. ñun wéet nañu waaye wéetal na senegal yépp mhm. ñun daal dañuy ñaan fee mu tëdd sëñ Touba fekk ko fa ak ndimbalam ak yërmandeem ci barke yonent bi barke sëriñ Touba waaw moom daal loolu la ñuy ñaan te ñu ngi rafet njott bu baax nag ci moom ndax liggéeyam bi mu bàyyi fii ak bëgg bu mu bëgg sëriñ Touba. Amin ak bëgg gi mu bëgg sëriñ Touba nee na wéetal nañu mu def ak moom 40 ans euh, loolu nekkatul loo xam ne lu ndaw la ba tax na dañ koy laaj dernière question bi doo ko bàyyi mu dem euh, deux ans yi nga xam ni moom la fi sëriñ bi manqué nan nga ko dundee. waaw xam nga nag comme jóge na fi foofu dañuy wéet moom. vide bi moom mu ngi fi. vide bi mu fi def ah c'est difficile ak combler waaye ñu ñu ngi koy dundee bu baax te di ko ànd ak Serigne Saliou Ndigal mii di ko ànd ak moom te mu ngi def lu ne pour perpétuer li nga xam ne moom la Serigne bi bëggoon mu ngi ci bu baax a baax. li ma leen wax sànq rek mu ngi rendi mu ngi bernde mu ngi bég mu ngi bégle ñun ñëpp bég nañu teral nañu jox nañu yére yi ñu sol comme sëñ bi ni mu daan def. moom daal tànku sëñ bi li mu nekkee woon moom la nekk moom sëñ Saliou Ndigal di ñaan mu yàgg fi lool te wér. te di sant lool ndax dafa sëñ Saliou Ndigal dafa yaru. dafa loolu la sëñ Sall Ndigal dafa yaru am respecté te lool du ñun ñi ko dëkk ak moom rek ñoo koy wax ñëpp a koy wax ñëpp a ko seere donc ñu ngi ñaan daal lii nga xam ne moom la yenn bii te sax du yen moom la la ko sëñ Touba maanaam sëñ Béthio bàyyil fii mu matal ko sëkk sëkk sëkk ba weesu li nga xam ne moom la ñu euh, yaakaaroon ci moom te am nañ ci yaakaar ndax benn bis damaa dem maag soxna Mboose di siyaare ji sëñ Muntaxa Mbàkke man ak soxna Mboose bi ñu bi ñu bi ñu simmee juste rek ñu dem mais sëñ sëñ Muntaxa daf ñu ne nañu wax sëñ Saal ndigal ne ko bu doon benn nit rek moo ko topp day dem mu ngi ci ndigal bu doon benn nit rek moo ko topp day dem donc ñun day dem boobu ñun xam nañ day dem te ñu ngi koy gis chaque fois chaque année day yokku daaw jéeg mel loon nii daaw mel loon nii ren dafa yokk dafa yokk te xam naa ne déwén day yokkuwaat waaw jërëjëf sëñ Saliou jërëjëf suñu yaay booy soxna ay sa maama kan euh, xanaa dama koy tëjeek benn question boo xam ni euh, si diggante njabootu boppam gi la muy kenn si ñoom moom it sama sëriñ la sama xarit la sama lépp muy Seydina Sëriñ Saliou ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak wér complicité am ak sang bi Thioune ak sëñ xalif bi euh, Sëriñ Saliou Thioune. moom moom Sëriñ Saliou ndigal. ak ak Seydina. waaw hmm. loolu de moom ñëpp a ko gis moom dafa dafa jëfee ndigalu sëñ Béthio rek te dafa xam ne loolu la mooy neex sëriñ Béthio. Hmm. te moom balaa sëñ Béthio làqu sax loolu lañ meloon bi mu làqu aussi Seydina dafa xam li nga xam ne moom la sëriñ Béthio ne bëgg mu mu bëggale ko moo tax ñun de dañuy ànd ak moom faaw man maay waajuru jigéenu Seydina waaye de seen ànd bi dama cee bëgg lool lii la sëriñ Béthio bëggoon ñëpp ànd muy doom yi taalibe yi mbokk yi lii la bëggoon jàmb rek la bëgg sëñ Béthio moo tax lii nga xam ne moom mu ngi ko ànd ak magam man de dama ciy bég lool tey xam ne day wéy faaw ndax loolu rek laa bëgg loolu la sëriñ bi bëgg mm-hmm. te xam naa ne loolu rek kay am mooy wéy faw te sëy naa maa ngi ko ci sant ndax man le fait que mu ànd ak nii sëriñ Saliou ndigal man man loolu mooy li ma neex mm-hmm. bu ma sañoon njaboot gi yëpp nekk benn nekk benn mm-hmm. bloc parce que sëriñ Saliou jërëjëf su sañoon njaboot gi yëpp nekk benn ba tax na dañuy yëkkati jotaa bi bàyyi ko ndax moom it daa nekk si ay yitte di ko ñaanal moom suñu ndey ji tedd ji moom soxna Aysa Maama Kan moom it mu yàgg fi lool Serigne Saliou ndigal ci nit mu yàgg fi lool ak rakkam yëpp te yàgg uuf ak ñoom di leen jox dig daja si kanam tuuti ak yeneen émission si 7TV jërë ngeen jëf. tey nee naa leen ñi ngi jannatu maxwa euh, kër gi nga xam ni mooy kër Serigne Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou gi euh, ñëw fii si këram sànq te kenn ki ñu dalal tey nag euh, dafa nekk kenn koo xam ni suñu sang la suñu sëriñ la suñu lépp la ñu jóge si waajuram bu jigéen léegi mu yëkkati ay kàddu si moom waaye laataa loolu damay bàyyi téléspectateur 7TV découvrir suñu gan tey muy Seydina Serigne Saliou Thioune Thioune ñu ngi lay siyaare bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah Moustapha maa ngi nuyu mbokk taalibe yëpp. te di la nuyu di nuyu équipe 7TV bi nga àndal ak téléspectateur yëpp. ñi ngi lay fay cuun di la ñaanal nga yàgg fi lool comme ni ma leen ko waxee rek dañoo jóge si biir eh, fekk juróom bu jigéen mu am kàddu yu mu seede si moom waaye laataa ñuy ñëw si kàddu yi dañuy wax sëriñ rek mu baaxee ñu màggal gi ni mu daan àndeek sang bi sang bi sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou daan dem eh, si nag yi daan dem fu ne si àll bi ak moom cuun tey eh, ñu ñëw si wàccaayu màggal gi ñu nekk foo xam ni tey sëriñ Saliou ndigal cuun la ñu fekk si nga ànd ak moom ñu gis ko si image yi fépp partout dans le monde tey sa digganteek Serigne Saliou Thioune ak nag yi nga daan jëndi ànd ak sëñ Béthio tey lan nga ñu si mën a wax. waaw ak cant laa ci yëg bu wóor wóor di sant Cheikh Béthio mi nga xam ni moo tax ñu am loolu moo tax ñu xam luy màggal ndax bis bi ma dina fàttali ne sëriñ tubaab dafa wax ni képp koo xam ni sama mbég sa mbëg la. bu yegg seetee nag ma sant la yàlla li ko dalee ci ginaar ba ci gileem looloo waral bu bis bi jotee moom ci jëmmam ci nekkam fi daanu wàll am jot daanu waan toog daanu waan nelaw daanu waan yennal daanu waan fanaanal lépp rek ngir jéem a dab dayob bis bi te bis bi kat lu ci waay mën a defit du tax nga dab dayob bis bi kon bis bi bu yegsee dina sama xel dina nekk ci moom doonte du jóg ci moom mm-hmm. ngir fonk gum ko mosoon fonk ak jàpp gu mu mosoon a jàpp bis bi waaye it mu jàngal ñu ne li ñuy topp ci Sëriñ Tubaa loolu du luy dee loolu leer la ndax bu fekkoon ni ci jëmm rek lañuy topp kon bu Sëriñ Tubaa mel ne ni suñuy gët daa làqu kon mën na noo toog bàyyi wala nu xool neneen lu nu def waaye ñun li ñuy topp ci Sëriñ Tubaa loolu mbirum yàlla la te loolu nekkul ci jëmm moo tax bu melee ni lu dëddu ci suñuy bët dina namm jëmmam ji waaye nag du tax ñu wàccee suñu loxo benn yoon sama diggante ak sëñ Saal nag day sama kilifa di koo xam ni sëriñ Muntaxa ko jiital ci ñun jox ko ndigal ñu war koo taxaw taxaw ko mooy taxawu liggéeyu sëriñ Tubaa taxawu ko mooy taxawu liggéeyu Cheikh Béthio te ma jàpp ne man am naa ci rôle boo xam ni dama ko cee war a dox war ko cee def moo tax foo ko gis rek gis ma ci wetam ma di ko jàppale ci liggéey bi waaw ñu bëri ñu ngi naan complicité bi si diggante Serigne Saliou Thioune ak Seydina Serigne Saliou Thioune dégg ngeen di suñu yaay wax soxna Aïssa Kane euh, damay bàyyi moom mu développé boppam nee naa leen <laughs> mënut a ñàkk foofu noonu ñu am lu ñu si leeral tuuti si complicité bi. ndeysaan seen diggante. waaw complicité bi day mooy dañoo bokk lu ñu bëgg. Mhm. te it ma yëg ne ndeysaan xam naa euh, loolu ma am complicité boobu ma am ak moom moom laa am ak ñeneen ñi nga xamante ni ay leeru sëriñ bi lañ. ñeneen ñi nga xam ne ay mbokk taalibe lañ loolu nag damaa jàpp ne sëriñ bi nga xamante ni mooy sëñ Béthio di suñu yaakaar noonu mu demee woon ak man daa mel ni loolu la ñuy barkeelu ci man ku ma gis nga bëgg ma fonk ma di ma safoo te ma jàpp ne li tax ma am loolu mooy noonu ma sëriñ bi defoon te mu mel ni am na luñ ci xam moo tax sëñ Saal ni ma mel ak moom laa mel ak ñëpp waaye moom da cee raw ndax moo jiite liggéey bi mm-hmm. ndax dama koy wax nee naa gaañe ku gis sa bopp rek. wala nga gis keneen rek doo dem man li ma war mooy fexe mu liggéeyal sëriñ bi sëñ di sëriñ Saliou di sëriñ Béthio tegoo ci aw yoon te gën a rafet loolu nag jàpp naa ni pour mu rafet fu ma jaar ànd koog moom moo tax ma mel moom nii ma mel moom. ba tey ñu ñu laajal ko ay question ah. ñaar si question yi dañuy jëm màggal waaye suñu jógee màggal Serigne Sarr dafa amoon lu mu joxoon suñu ndigal hmm. muy nañu fonk màggal Serigne hmm. hmm. avril tey si yooyu noonu gàmm geeg euh, xasida yi ak 17 avril bi lan nga ñu si mën a wax waaw sëriñ Saliou Cheikh Béthio moo nu wax sëriñ Béthio moo ñëw wax ñu ne bi muy mujj gisanteeg sëriñ Saliou ci saayir da ko wax ne ko waxal sa taalibe yi nañu fonk màggal gi ne ko waxal sa taalibe nañu fonk gàmmu gi ne ko waxal sa taalibe yi nañu fonk xasida yi sëriñ tubaay yi nee na moom moo ci boole nañu nañ ci boole 17 avril moom sëñ Béthio kon jàpp naa ni képp kuy ab murit moom wala nga ab jullit mbigum sëriñ Tuubaa di sa mbég fonk màggal gi dala war waaye ma di la fàttali ni cantaakoon yi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Béthio dañ cee am beneen cër bu yees ndax sëriñ saaliw moo woo Cheikh Béthio mu ñëw mu ne ko kat def naa sa màggal muy sama màggal ne ko kat bi sëriñ bi wootee dangaa gis ne ñëpp dañoo ñëw am na ñoo xam ne bi ñuy ñëw mënuñu ko waaye seen bëgg sëriñ bee tax nu ñëw te ma gis ne màggal gi bu jotee day mel ni dañuy am ay jafe-jafe ci wàllum berne ma bëgg nga wër sampal ma ay waañ ci sancaan yi mooy waañ yi ngeen di dégg. nag yi nga xam ne moom la ñu jënd yëpp fa lañ koy yóbbu di ko fa def ay waaj veille yu màggal bi la jour bi ak lendemain bi kon màggal gi jàpp naa ne kuy ab jullit rek fonk ko war na la waaye rawatina nag kuy ab cantaakoon ndax loolu ñu sëriñ Saliou cërale ci màggal gi gàmm gi képp ku di jullit dalaa dalaa da ko war a fonk te ne ci xasida yi nag moom saa su ne ñi ngi ci te ñi ngi ciy gis ay yokkute mbokki taaliba yaa ngi koy jàng ci anam yu wóor ci anam yu sell ndax sëriñ Saaliw kat moo ne xasida yi fu ñu koy yàqee sax dara du fa yàqu waxu malak nag ñu tegoo ci yoon wi nii ñu ci tegoo di ko jàngee jàngin wu sell wii ñu koy jàngee moom na nga xam ni mbokki taalibe yi sëñ Saala ngi leen ci soññ man maa ngi ciy soññe lu ma mën ñëpp a ngi ciy soññe gaa yi ñu dajale di ko durus di ko jàng te di ko mokkal nga nga tëjeeg benn question tey looy lancé appel hmm. cantaakoon yi su ma nee cantaakun nag cantaakun yëpp laa laay wax. Mhm. loo leen di lancer appel si sëriñ bi. waaw cantaakun yi li ma leen di lancer mooy ñu gën a bëgg sëriñ bi ndax sëriñ si Béthio moo ñu wax ne buñ la tarbiyaa tarxiya la dañ lay tasfiya mhm. nee na tasfiya nag mooy savoir comment vivre avec la société nee na da ngay xam li rafet nga di ko def kon cantaakun yi ci li ma leen di woo mooy ñu ànd ci lu rafet te lu rafet ñëpp xam nañ ko. li rafet mooy ñu wéy ndigal yi li rafet mooy ñu àndandoo booloo doon benn doonu benn say fas yéene liggéeyal sëriñ Saliou mii di Serigne Béthio mais appel boobu laa am bu ma leen di lancé. jërëjëf hmm. muy mel ni ñu ngi ñuy lancé léegi di ñu wan benn nataal boo xam ne si sëriñ bi la. Hmm. muy Serigne Saliou. Hmm. ak Cheikh bi ak sëriñ Saliou ndigal Thioune. Eh, mbokk taalibe yi Seydina. Ah, hmm. lii ne loo ñu si mën a mën a wax loo ñu si mën a leeral rek si lu gàtt si nataal bi. waaw nataal bi sëriñ Saliou la sëñ Béthio ak sëñ Sall Ndigal sëñ Sall Ndigal keroog biñ ko indilee nataal bi sax mu ngi naan ma nataal bi de ki ko defar mu ne mu ne ma daa bëgg sëriñ bi waaye xam nga ne warta def sëriñ bi sëñ Saliou mu toog nii ma toog nii mu jël sama mbaxane mi bàyyi ci. Hmm. loolu rek di wanewaat ak taalibe. Hmm. nee na kii daa xër bëgg sëriñ bi waaye moom li ko gënaloon sax mooy nee na mu defee ko neneen gën koo dugal ci suuf ngir wane ak taalibe kii nag moom sëriñ Saliou moom duma ci nekk di wax ndax ñun ñëpp xam nañu ko lii rek day wane aw yoon Serigne Saliou sëñ Béthio wax nañu ne li ko sëriñ Saliou wax lépp nee na moom mooy jaamu sëriñ Saliou man mii yàgg naa toog ak sëñ Béthio ba tàyyi nga gis ku jóg di ko way mu ne ma demal ba ca moom nee ko bu ma tudd na tudd sëriñ Saliou kon moom cër yi mu amoon yëpp ak li ko Serigne Saliou wax ak li mu ko defal lépp daa doon ab taalibe fas yéene doon jaamub sëriñ Saliou loolu nag moo jaadu laat wax ci ñëpp war a jaar ci sëñ saal mii te lii di yoon wi di lu rafet mooy li ma la wax léegi lii mooy li rafet te li rafet jàpp naa ne ñëpp ci lañ war a tënku di la ñaanal nga yàgg fii di leen fàttali rek euh, moom mii ànd naak sëñ Béthio fu ne ba si dernière sottee mi du lépp nag lañ mën a wax waaye cun daal ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak wér mbokki téléspectateur 7TV ñuy bàyyi xel nee naa leen nii la ñuy wéy di ànd ak yéen si programme màggal gi dinañ ànd ak yéen fépp dinañ dugg fépp tamit dinañ siyaare ji ñëpp waxtaan ak ñoom si sëriñ bi te leen wax dinañ jox di daje si kanam tuuti incha allahu rabbi seen beneen numéro si 7TV jërë ngeen jëf bismillahi fii شريك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيع وما لواء يخفيك يا الله كتبت وكل فاء نفسا فوسردا وقبل سالبي نسيب دون دردا Sara